juggle if you want. War, war, every day they war. Bul mă sățai, gămăl te bulbai, lu bahte, jomul, gănel romul, jamba di sahmon, dek de neti war. War, war, every day they war. Bul mă sățai, gămăl te bulbai, bonjour chers téléspectateurs bienvenue dans ce nouvel épisode de Kaay Job tey ñu ngi parcelle unité 22 moom nag elle est technicienne en génie civil mais loolu moo tax ñu seet si ko elle suñu pot café yi nga xam ne dañ koy utiliser ba pare sànni ko suñu carton jus yi nga xam ne dañ ko nan ba pare sànni ko dafay dem récupérer ko def ci ay objet yoo xamante ne dinañ ko mën a utiliser ci bureau yi wala ci kër yi mën nga ko sax jël joxe ko comme cadeau tey dañuy dem yendu ak Fatoumata Dia ñu woon ñu transformation boobu yëpp nan la koy defee et elle aussi nu parler de son histoire Fatmata Diagne maa ngi juddoo Géejawaay yaroo Médina euh, parcelle la sëy na technicienne la en génie civil actuellement si brico art si la yëngatu parce que sama passion la damay recycler ay carton jus de fruits comme par exemple TCA yi carton euh, keesu café yi mooy boîte cafe yi boîte de conserve yi dama koy recycler aussi rouleau kii la rouleau papier yi rouleau bâche dama koy recycler aussi ah, ak ay tableau d'art dama koy recycler magazine moom laa jël di ko recycler def di ko def tableau d'art pot yi yu si ëpp dama koy for mun naa euh, consacrer journée boo xam ne damay jël sama saak dem pour buuju comme on peut dire ça euh, yeneen yi damay dem si boutique yi ñaan leen mooy seen potu pinton yi wala pot de tomate ma ñaan leen récupérer ko même buñ ko amul tamit mun nañ ma dencal euh, man su ma amee temps dama fay jaar récupérer ko. salaamaaleykum. Diallo Boutique. na nga def yaa ngi potu café yi amoo ko waaw bëgg naa xoolal boo amatee pot yi nga dencal ma dégg bu ko sànneeti de dégg même potu thon yi dama koy soxla jëm ma demee ba ñëw damay désinfecté wu euh, raxasoog omo eau de javel su ma ñëwee takk sama masque commencé liggéey. Euh, am na pot yoo xam ne comme potu pinton yi wala potu tomate yi xam nga boutique ñoom nu leen neex lañ koy daggee loolu dafay laaj jël defaraat balaa mu laa gaañ loolu di nga jël marto wala beneen euh, euh, matériau matériel du moins jël ko defar ko léegi pour euh, raxas bi dinaa ut omo ak eau de javel raxas ko ba mu set voilà su ma paree weer ko si naaj bi parce que récupération si mbedd bi la jógee xaw ma lanax lan moo ci nekk c'est normal aussi récupération bi may def ma jël matériel yi raxas ko ba mu set dama mës a rêvé sama marque créer sama entreprise mun naa ne jaañnaar bi foofu la jógee léegi bricolage bi ak récupération bi yoon la woon pour ma jaar fa créer jaañnaar 2018 wala 2019 si laa njëkk def euh, récupération loolu c'était à base de bouteille yu ko bu vide si laa jël dagg ko créer ko léegi si laa doon dugal samay règle ak samay pinceau à make léegi nag ma publier ko nag sama statut ma am si ay retours yu positif ñi naa ma pour pourquoi mënuma koo jaay mais du subitement nag laa commencé jaay parce que temps yooyu noonu maa ngi waroon préparer sama BT en dessin bâtiment talu ma ko woon toogaat naa ay trois ans doog see nekkaat parce que ba ma amee sama BT aussi aw moon jot vacances yi dama naa nekk si le terrain parce que comme génie civil laay def vacances damay déposer stage nekk si le terrain léegi nag ma reprendre samay études war a préparer sama BTS aussi toujours tamit aw moon jot léegi nag lii gën li ko gën a yeesi man affaire art bi ba mooy ba ma sëy sëy fii sama jëkkër parce que tamit sama jëkkër moom tamit artiste la daa nekk si art bi comme man moom moo ko gën a yeesi man parce que day gis benn affaire nee ma lii nii mun nga koo def pourquoi pas nga defee ko nii ak nii mais dama naan ko bàyyi ba rek ba ma am sama BTS ma doog euh, concentré war si affaire yi waa xanaa lool parce que fii dama ci defar carton kon defa dama fii rek fii non non fii carton dama ci defar carton a beneen tissu léegi nag ba ma amee sama BTS si laa doog a concentré waat si récupération parce que vacances dama daan déposer ay stage si entreprise yu bëri du ma am retour toog bi tamit nekkul woon lu ma neex euh, toog bi nag daf may ennuyé wu c'était ennuyant léegi nag dama daan toog di récupérer di def bricolage di def décoration foofu la jógee waatee yi pot de tomate la pot de tomate yi laay jël base bi lii la lii lay doon su ma jëlee raxas ko ba mu set def si li ma ci war a def léegi dama kay intérieur bi dama ciy def peinture ça dépend wala bomb bu adapté ak couleur def si vax teg si vax bi si suuf dama siy def carton ak popeline léegi su ma ñëwee si pot primila yi nii mooy potu meew xale yi ñuy defaree biberon commencement bi lii la woon mais fin bi nii la. yii aussi potu céréales yu mag yi la c'est la chose ak yi même chose laa koy def léegi su ma ñëwee si yii nii yii pot yu ndaw la base bi lii la woon rouleau yi ay rouleau bâche lay doon euh, si imprimerie yi laa koy ñaanee ay carton bu dëgg la nag bu ma jëlee dama koy dagg. léegi si suuf ma collé si carton def si wax bi ma peinture ko wala ma xool leneen lu ma ci def ba mu am couleur bu sombre nii la demee léegi bu ma ñëwee si yii nii yii nii day nekk genre corbeille wala calebasse on peut mun na def lu bari yi base bi lii la woon yi aussi si imprimerie yi laa koy ñaanee xamatuma nag lu muy def léegi dama koy jël dagg ko matériau bu dëgg la nag su ma ko daggee ci suuf aussi dama si collé carton def si lu ma ci war a def teg si wax bi après fin bi nii lay mel mus naa publier sama story Facebook am ku ma boobu si bracelet sax laa laa commencé woon mu commenté nee ma de technicienne en BTP qui devient fabricante de bracelet mu reetaan xawoon na ma touché tuuti mais moom ay reetaan la ko jàppee mais man ndax ma xawoon touché am na yeneen aussi suma publier damay jot ay émoticône ay reetaan wala yooyu yooyu tamit daf may touché parce que sénégalais ñu si bëri mun naa ne cinquante pour cent yi xamuñu valeur récupération ñoom daal lu bees la ñuy bëgg ay affaire de luxe noonu la demee man nag euh, am na yoo xam ne duma tontu yu si bëri duma tontu mais ki ma message yoon naan ma de technicien en BTP à fabricante de bracelet kooku tontu naa ko à la fin waxoon na ma ne doon foo yooyu noonu genre yooyu non non non mosuma see découragé parce que bricole euh, récupération bi may def nekkul woon si pot laa même ay yére dama daan def récupération parce que je me rappelle sama daf ma daan may ay veste années 60 yooyu wala ay robe dama daan jël bricolé ko ba mu nekkaat tendance récupération moom yàgg naa kaa def amoon naa ay camarades de classe yoo xam ne ma doon ñaawal si loolu sama business fu mu démarré na mooy kaay job parce que Ka Diop tamit maa ngi leen di sant bu ma siwee bu du ma nee siiw sax mais bu ma demee si ba sama business toll fii si ñoom la parce que man page boobu sama jëkkër moo tax ma xam ko moo ma nee ma dóogal foofu publier ko léegi ba ma defaree benn stock ma dóogal publier après am naa fa ay retour si laa commencé nag def business après sa nag si laa jaaree waa Kaay Diop en collaboration collaboration ak kii Baraka Events si lañ ma may benn stand pour ma exposer gratuitement foofu tamit jaayoon naa fa bu baax. liggéey bi bëgg naa see dem fu sori bëgg naa dem si ay dëkk di représenté Sénégal si affaire de recyclage sauver l'humanité bëgg naa créer sama entreprise récupération décoration intérieure euh, vente d'objets daal lu bëri lépp daal luy aar daal bëgg naa see yëngatu jafe-jafe yi mooy matériel parce que yu si mel ni boo ko jëlee il faut nga am matériel yoo xam ne dina mun dindi weñ bi ba doo ci gaañu genre yii nii aussi da ngay soxla si à métaux yu koy dagg parce que yi damay obligé yóbbu ko si menuisier ñu daggal ma ko te damay fay yooyu tamit dafay nekkaale ay dépense am na ay matériel yoo xam ne daal dama koy soxla dama koy soxla jënd ko au lieu que ma koy yóbbu man ñu ma koy defaral je préfère toog sama atelier defaral ko sama bopp bu ma amee matériel asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi safoo seen émission Kaay Job tey nag ñu ngi fii biir délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes la DER ñu war a nag tey suñu gis suñu experte du jour madame Aminata Ly madame Aminata Ly di directrice du partenariat de la communication et du marketing ici même à la DER ñu war a waxtaan ci wàllu financement de projet comment trouver un bon financement quels sont les types de financement existants mais aussi comment soumettre un projet ñu ànd ak suñu experte du jour madame Aminata Ly ñu dem seeti côté ñëw DER mooy euh, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide euh, pour les femmes et les jeunes muy kuréel bi fii euh, de la république teg fin ñu tàmbali suñu activité euh, mars 2018 le 8 mars plus précisément muy date bu symbolique pour jigéen ñi euh, considérant notre cible donc suñu rôle mooy euh, yombalal ndaw ñi donc góor ñi 18 ans ba 40 ans jigéen ñi 18 ans jëm kaw amul àpp pour jigéen ñi dañu def discrimination positive ndax bu ñu xoolee statistiques yi dañuy gis ne ñoom ñoo gën a sonn ci wàllum utum liggéey wala wàllum entrepreneuriat wala accès au financement en général donc euh, kuréel bi dañ ko fi teg pour ñu faciliter leen accès au financement euh, si euh, seen projet entrepreneur yooyu maanaam boo amee projet moo xam ci mbay mi la wala wala artisanat wala élevage transport logistique et cetera ñu daal di la jàppale ci financement bi nga soxla moo xam investissement bi la wala fonds de roulement bi wala ñaar yëpp pour nga mën a développer sa activité financement yi ñuy def nag dañ koy euh, jaarale ci ay banque ak ay institutions de microfinance euh, donc euh, loolu mooy képp koo xamante ni financé nañ la dinañ la bancariser waale mais également dañ lay former waale donc dañu am benn direction bu ñuy wax la direction de la promotion de l'entrepreneuriat lépp luy formation si ñoom lay jaar ñu jàll ñu ànd si ak suñu ay partenaires yu écosystème entrepreneurial bi ku ci mel ni 3FPT moom mooy financer formation wu entrepreneur yi DER financé ñu itam ñu daal di financer entrepreneur yi nga xamante ne ñoom formé nañ leen ku ci mel ni ADEPME également dañu ànd ñoom ci euh, formation wu suñu entrepreneur yi bu loolu bu loolu weesoo euh, la formalisation c'est également quelque chose de très important aujourd'hui lu ëpp pour cent tissu économique sénégalais ci secteur informel bi la bokk mënuñu leen exclure ndax ñoom ñoo constituer économie sénégalaise mais buñ leen di financer dañ leen di formaliser waale ñu amaale NINEA ak registre de commerce nekk ay entreprise yu formel yoo xamante ne mën nañ dem ba di am ay marché di gagner ay marché que ce soit public ou dans le privé euh, mais également plus tard ñu élargir donc produit am nañ ay produits yu bëri produit produit bu ci ne dafa méngoo ak besoin wu entrepreneur yi ñuy am donc bi jiitu mooy bi gën a ndaw mooy nano crédit bi nga xamante ne fan yi yëpp euh, ñu ngi ciy wax ñu ngi ciy liggéey financement yooyu vingt cinq mille lay commencé ba cinq cent mille euh, bu weesoo nano crédit am nañ beneen produit euh, bo xamante ne c'est destiné à l'autonomisation économique des jeunes et des femmes euh, ñu tam buy tàmbalee cent mille jëm un million donc à partir de produit boobu nag bépp financement bu DER def ci banque lay jaar wala ci institution de microfinance Euh, mooy li ma wax sànq dañu am également rôle bancarisé ciblé yi ndax suñu cible première mooy ñi nga xamante ne banques yi ak institution de microfinance yi mënuñu leen financer ndax dañu risqué trop donc ñun dañuy préparer cible boobu jaarale leen ci banques yi ak institution yi de microfinance yi de sorte que bu ñu dëgëree ñooñu mën leen jël ci seen portefeuille euh, constituer historique de crédit ak ñoom daal di leen consigner finance madame Fatoumata Diagne maa ngi koy euh, maa ngi koy encouragé ci li muy def c'est très important euh, mooy li ma doon wax rek euh, kenn warul xeeb li muy def looy def loo looy def rek na nga ko gëm jox ko àq bi war après ndimbal dina la ci fekk donc li ma koy conseiller mooy mu daal di déposer projet ci financement point DR point sn cinq étapes la bu ubbee compte bi ba pare cinq étapes Euh, lay euh, lay renseigner bu ko renseigner ba pare daal di déposer projet vu activité bi mu nekk di def dama koy conseiller mu daal di dugal un projet pour autonomisation mooy projet de moins d'un million yi mu tàmbalee ko sachant que bu ñu ko financé day amaale formation bi ma doon wax sànq formation bi euh, bi ci njëkk day nekk éducation financière ak calcul des coûts maanaam mu xam moom compte bancaire bu bees bi ñu ko ubbi ubbil nan la koy gérer activité bi mu am charge yi muy charge yi mu am maanaam dépense am yi ak recettes yi nan la koy gérer nan lay def ba du jaawale poosam ak poche entreprise bi bu weesoo loolu également euh, formalisation bi dafay euh, bokk na ci accompagnement wu DER maanaam ñu jàppale ko mu am NINEA registre de commerce euh, te bu góor góor góorgóorloo dina dem ba xëy na dina mën defar sax ay cadeau d'entreprise ak li muy li muy li muy defar nii cadeau d'entreprise yooyu ñëpp xam nañ ne balaa ngay liggéey ak entreprise faaw nga am kayit te kayit yooyu yi ci njëkk en tout cas mooy linéa ak registre de commerce loolu yëpp bokk na ci accompagnement wu DRFJ accompagnement bi package la waruñu ko gisee comme financement kese ñun en interne les trois F lañ leen di woowee formalisation financement formation te pas-pas bi mu wane euh, ci vidéo bi bu ci continuer am nañ yaakaar ne dina dem fu sori feel